mi ngoo ko amee internet Thiès Info ñu ngi leen nuyu bu baax a baax kenn ku ci nekk si turam ak santam comme ni ma leen ko waxee woon sànq euh, ñu ngi fii nga xamante ni moom moo di ci kër euh, cofeel gi di kër soxna Aïda Saliou Thioune dégg jéggi jëm mi Serigne Béthio Thioune mbokk yi nag fii nag li fi xew moom moo di euh, bis bi nga xamante ni moom moo di le 4 juin le 4 juin nag gi li ko sabab du leen lu dul waaj li nga xam ne moo di màggaluk Serigne Touba Khadim Rasoul gi ñoom ñu ni dañoo bëgg a matal mboole seen seen ay sas yi nga xamante ni moom la ñu sasu jëm ci li nga xamante ni moom moo di màggal gi laataa ñuy ki loolu nag moo waral euh, sabab soxna Aïda Saliou Thioune daal di woote li nga xamante ni moom moo de bis bu mag bu rëy bu màgg bu am solo bi euh, ci fii nga xamante ni moom moo di ci dëkkam bi di woy ci turu Madinatoul Salam euh, ci kër gi ñuy woowee kër coofeel ngeen gis mbokki taalibe yi ni nga xamante ni noonu la ñëwee également ngeen gis ñuy jàng li nga xamante ni moo di xas day Serigne Touba nga gis soxla yi ni ñu yëg see ak ni nga xamante ni ñoom ñoo di góor yàllay waaye li ci gën a yéeme mooy ñoom ñëpp koo ci gis li nga xamante ne moom mooy xas day Serigne Touba Khadim Rasoul yi dañ koo mokkal amet loolu li koy firndeel mooy dañuy wëlbatiku rek nga daal di xool uh, li mu uh, soxna yi nga xamante ni uh, ñoom ñoo fi taxaw te war a def li nga xamante ni moom moo di jàng xas day Serigne Touba yi rawatina xas gii di wakkaana akkan voilà soxna yi ngeen gis leen nii ñoom ñëpp fa seenee taxaw xaar rek li nga xamante ni moom moo di dëgg-dëgg yi jëmmi Serigne Béthio Thioune soxna Aïda Saliou Thioune rek mu daal di génn ñu daal di ànd ak moom li nga xamante moom moo di di cant gi waaye ñoom soxna yi ngeen gis nii également ñoom ñoo fas séenee euh, def li nga xamante ni moom moo di daal di koy ànd ak moom gunge ko euh, gunge ko ak xasida gunge ko ak li nga xamante ni moom moo di wakkaan ak xan ñoom soxna yi ngay gis euh, koo gis rek mu daal di taxaw ci li nga xamante ni moom moo di ci ci ci ci ci sàppe bi mën naa ko tuddee sàppe ndax boo leen xoolee ñoom ñëpp dañoo tolloo même fu ñu taxaw nga gis leen ñu muuru sellal ba mu sell seen dënn yi bu ma nee leen xasida Serigne Touba Xaadim Rasul ñoom ñoo ci nekk ñu man ko mokkal ko fas yéene Euh, rek daal di gunge ki nga xamante ne moom moo di soxna si ngir mu daal di génn ngeen gis leen noonu ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ci biir kuréel bi comme ni ma la ko waxee woon sànq da ngay gis ay tuut tànk ci biir amet da ngay gis ay tuut tànk waaye tam da ngay gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay mag ñoom ñii ñëpp def li nga xamante ne moom moo di xas day Serigne Touba yitte mokkal ko ba noppi di ko jàng te du ñu ko xool ni nga leen gisee ni ñu taxaw nii noonu la ñuy taxawee duñ ko xool duñ ko liir tey dañ koy jàng di koy yëkkati ak a biral ca kaw ñoom ñëpp ñu jël ko def ko seen xool kon mu nekk mbir moo xamante ni mu am solo la kon nag am internet euh, Thiès Info euh, ñu daal di xaarandi tuuti rek ci kanam euh, ki nga xamante ni moom moo di soxna Aïda Saliou Thioune dëgg jëm bi Serigne Béthio Thioune daal di génn ñëw ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mbokki taalibe yi ci biir li nga xamante ni moom moo di fii cant gi war a amee pojom baa ngi ne ngeen gis kon nag ci kanam tuuti rek yéen ñi nga xamante ni yéen a nga ñuy teewlu di ngeen xam ñi nga xam ni ñoom ñoo di cantaako nii ana naka la ñuy li nga xam ni moo di màggaluk Serigne Touba gi cantuk matal sas la képp koo xamante ni sas woon nga li nekkoon sa xol mooy nga matal ko laata bis bii di ñëw euh, tey jii nag moom mooy bis bi nga xamante ni ci la cantaaku ni fa séenee matal seen sas jëm ci màggaluk Serigne Touba soog a waaj ay tabaskeek yu ni mel seen mbokk seen xarit Fall Dammel feggoo càkk Ahmed Sarr ci kanam tuuti. yi euh, bi euh, soxna Aïda Saliou ngi noonu ngeen seen mu def blanc. ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ñaari buntam yu tedd yi euh, soxna Adja Saliou Thioune ak soxna Botor Saliou Thioune ngeen gis leen noonu ñu daal di euh, def li nga xamante ne moom moo di ànd également di am solo euh, ngeen gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mbokki taalibe yi ñi nga xamante ni noonu la leen di ñëwee ngeen gis leen noonu acca kon soxna Aïda Saliou Thioune mu ngi noonu di génn mu ngi noonu soxna Aïda Saliou Thioune mu ngi noonu ànd ak euh, buntam yi euh, cantuk euh, li nga xamante ni moom moo di matal sas le 4 juin tey fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar soxna Aïda Saliou Thioune ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di soxna yi mbooloo mi nag fi mu toll nii ñoom ñëpp li ñu yëg mooy mbég ba àgg ci mbégaajo ngeen dégg ki nga xamante ni moo di maam Cheikh Sikar muy amal li nga xamante ni moom moo di Sikar mu nekk également lu am solo. soxna Ayda a ngi noonu di génn ànd ak mbooloo mi également ngeen gis euh, soxna Aida Saliou Thioune euh, soxna Batoor Saliou Thioune soxna Adja Saliou Thioune ñaari buntam yi ah soxna Aida Saliou Thioune mu ngi noonu taxaw di jaayu di dund xamante ni moo di màggal gi ndax dañoo nekk ci li xamante ni moom moo di waajal màggal gi tey jii nag ñu fas yéene matal li nga xamante ni moom moo di sas yi nga gis mbég mi mbokki tali àndee ko mu nekk également lu am solo voilà mu ngi noonu kon ngeen gis euh, li nga xamante ne moom moo di euh, soxna si euh, ni mu génnee noonu nga gis vraiment soxna Bodo Saliou Thioune soxna Adja Saliou Thioune ngeen gis leen noonu yaay de Saliou Thioune ndeysaan nekk ci mbég waaye itam di jaayu lépp ngir li nga xamante ni moo di màggalu Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ji ngeen gis leen noonu mu nekk lu am solo mbokk yi nga xamante ne ñu teewlu en direct fii ci këru cofeel gi ci Madinatu Salaam waaw ngeen dégg. mbooloo mi ni ñu àndee ci mbég gis ngeen nataal yi sëriñ Béthio yi nga mbooloo mi ànd ak moom santataat santati yeesal gi euh, nga bu dee ñoom ñoo nekk noonu également mu nekk lu am solo ca ngeen gis soxna yi soxna yi itam ñu ngi noonu di fësal li nga xamante ni moom mooy euh, li ñu war a fësal mu nekk également lu am solo waaw waaw nga gis mbokk taalibe yi mu nekk également lu am solo waaw waaw maam Cheikh mooy way ñu réeréen gindi nga leen Boursine Boursine ak ci suble gi macha allah mu lu am solo aca Boursine a ngi nii moom it di wér a kaan di ndaanaan waaw waaw maam Cheikh waaye ca Serigne Béthio séddale nga la jaam ñu wuy si leen waaw. ñoo ngi jantug waajal màggal gi le 4 juin fii ci Madinatu Salaam kër gi nga xam ni moom lañu ñu dippee cofeel waaw waaw déggal maam Cheikh Sikar ndeysaan waaw waaw réeroon gi ninga leen nga jàll leen ñi tiitoon nga dalal leen sëñ Béthio oxo ça c'est beau xoolal ma nataali ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ci mbég ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ci mbég ku ci nekk ci ci mbég mbég mbég mbég ndeysaan ndeysaan man la mbokki taalibe ñoom ñëpp a ngi ci waaw fayda Saliou Thioune daal di woote li nga xamante ne moom moo di bisub cant gi mbokk yi cant gi sabab bi mooy waajal li nga xamante ne moo di màggalu Serigne Touba gi ayca kon mbokk yi ñu ngi fii ci woote li nga xamante ne moom moo di matal sas ci màggalu Serigne Touba gi mbokki taalibe yi jekku li nga xamante ne moo di màggalu Serigne Touba gi mu féete boor ñu soog a leneen matal sas balaa tabaski mooy kàddu yi nga xamante ni moom la ñu fànnoo ñoom mbokki taalibe yi jëf ndeysaan mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ñuy teewlu direct ci Thiès Info ak Dabakh TV waaw waaw mbég mi la ñi xamante ne ñoo ne cantaakol yi di dund maam Cheikh Sikar la muy wax moo di li ñu jàppoon ba am li duñ ko bàyyee te jig nañu dugg na ci beneen euh, air Thank you. Thank you. ñu toog